Salut ci vidéo vous ñu fas yéene ci leeral lu ñuy wax adjust my stock adjust my stock moi, elle permettre ajuster ses stock par exemple da nga am produit bu ñëwee fait ci gestion produit ñu daal di ñëw ci euh, des produits produit bini Apple AirPods Max am ci zéro pièce zéro pièce mais actuellement vous ñu xoolee suñu stock am nañ ci quatre pièces quatre pièces yooyu lañ bëgg ajouter pour loolu da ngay ñëw fii ci ajustement des stocks boo ñëwee fii ci ajustement des stocks donc nga daal di ñëw ci ajouter une nouvelle stock après ma tànn produit boobu par exemple turu produit bi lan la Apple AirPod Max moo nekk nii quantité bi ñaata laa ci bëgg a ajouté am naa ci 4 4 yooyu laa bëgg a ci sama stock am naa possibilité ajouté am naa possibilité tamit wàññi par exemple daf ci am boo xam ne euh, dafa yàqu samay loxo la yàqoo wala genre mën naa am possibilité daal koy wàññi ok moo nekk noonu quantité après ma daal di def créer su ma defee créer donc da gis ajouté naa 4 su ma fii ci gestion des produits. mu daal di ñëw fii produit da ngay gis produit boobu am naa ci stock actuel 4